asalaamaaleykum bokk jur yi ñuy déglu ak bokk taalibe yi jot na ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg te ànd ak wér ak kan sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak kan sëñ Badar Ndaw xalifa sëriñ Babacar Ndaw ak kan sëriñ Amdou Moustapha Ndaw Khalifa Baye Cheikh Ndaw ñu jëm nak ci bis bu ñëpp doon xaar bisub kan Baye Cheikh Ndaw jambarul islam ja jàmbaaru Serigne Touba ji waaye Cheikh Ibra Fall ja ku ma sa ak mom sa aajo faju na ñu am mbégte ànd ko bokk yi ak sët di def 8e édition màggalu Baye Cheikh Ndaw kan lay doon samedi 21 avril ñaar fuk fan ak ben ci weeru avril 2018 ci kër Cheikh kër Baye Cheikh Ndaw bis ba nag ñoo ko yëgal monsieur Malik Fall le maire de Diourbel ak Omar Samb responsable politique di ko yëgal Baye kan ca Njaareem Khalifa Fall Madior ñu ngi ko yëgal Badara Baro Sidi Diop ca Njaareem Idrissa Diop ca Njaareem El Hadj Moudi Dibba commerçant As Jaxate commerçant Khadim Lo commerçant Assane Diop daabaay ñu ngi ko yëgal ak kan Aminata Tall responsable politique Ibra Mbacké Tine ñu ngi ko yëgal ak kan monsieur Birima Mbangar le ministre yi budget Dame Diop responsable politique waaye ne lu gouverneur ñu ngi ko yëgal bis ak le préfet du département bi nag bu ñu xëyee ca la ñuy jàng nag alxuraan ja 16 heures ba 17 heures daañu def nag ay bernde waaye bu ñu demee ba 5 heures gannaaw tàkkusaan daan def cérémonie officielle bu rëy boo xam ne ci teewaay nag monsieur le maire Malick Fall lay doon ak teewaay Omar Samb daañu fa def conférence bu rëy koy def nag sëñ Mbay Ngiraan ak sëñ Mamour Ndaw di sët ci kër gi daan waxtaane tem bu rëy ci Baay Cheikh Ndaw jàmbaar jooju nga xam ne kenn du ko fàtte waaye sikkurulaa ba nag sëriñ Cheikh moo koy def ak sëriñ Gaynde Caan ak Baay Moodu Cuun ak sëriñ Maguette Diagne ak sëriñ Xaadim Mbay ak daayira kër Cheikh bu ñu demee nag trois ba neuf sëriñ Baye Fall kenn rek zikkur laa mooy tëj guddi ga bis baa ngoog bisi Baye Cheikh Ndaw ñëpp dañ ci ak waa Touba jàmbaar jooju nga xam ni wàllu mag wa jàmbaar ji xam ni tabarkàlla ñëpp xamoon nañ ko ci jamonoom ci ay xar baa xam wana sëriñ Touba ak Cheikh Ibra bis baa ngoog samedi le 21 avril 2018 yal na ci yàlla yóbbu jàmm wasalaam